mbokk mu ngi naan Makhtar Sy ñu bëri gën ma xam ci euh, Makhtar la Kagulaar ndax euh, musique bi ma daan def euh, jamono yi may def musique et tout so you know di leen nuyu li waral nag tey vidéo bi en fait you yu bëri dama ma amaan lu ma bëgg wax dama ko daan teg ci musique support musical mais comme que yàlla def na ma ma ma bàyyi musique te vraiment combat bi jeexagul Euh, on a eu l'idée que nañu bon quand même nañ def ay short vidéo yenn yu am yoo xam ne mën nañ ci conscientiser surtout jeunesse bi surtout jeunesse bi euh, jeunesse bi les neveux les petits frères surtout ñooñu le métrage message bi ak les sœurs les petites sœurs et autres ñoom la you know message bi ñoom lañ gën a adressé donc tey c'était pour euh, li li li waxtaan bi tey mais li ma bëgg a wax c'est ça va porter sur benn vidéo bu ma posté tey Facebook you know am benn waay boo xam ne euh, humilier na dafa humilier benn jigéen xam nga benn koo xam ne peut-être yaay la peut-être la peut-être euh, you know bàjjan la tant la you know mooy Ami Collé euh, gis nañ niñ ko humilier vraiment mu nekk mbir bu ñaaw boo xam ni par exemple ñëpp buñ koy xool nañu xam ni rek nuñ ko war a gisee mooy ku nekk mënoon na nekk sa kii bien que tamit dafa leer mooy moom lan lay def foofu lu mu fay def te defe naa dina jàng moom tey dina jàng benn bépp jigéen tamit bu topp kooku ak ñi mel ni moom dingeen jàng ngeen xam ni dañu mbubboo sëñ Tuuba dañu mbubboo mais li ñuy def seeni pratique nit ñooñu ça n'a rien à voir ak alxuraan ça n'a rien à voir ak xadis ça n'a rien à ak li fi sëñ Tuuba jàngale ça n'a rien à voir ak li El Hadj jàngale ça n'a rien à voir ñoo Omar Foutiyou Baye Niass liñ jàngale donc defe naa yàlla rek mooy ñëw di won di leeral mbir yi tey donc euh, enseignement bi defe naa ñëpp war nañ comprendre war nañ comprendre que tey ñu si enseignement ñu si jëlee amin moral ñu si jëlee mooy euh, mbir yaa ngi leer te jii euh, bi may génne fi cent onze commentaires beaucoup m'ont critiqué parce que damay ñëw ñu ne woy damay diingat sëriñ yeeg damay kii donc lii laa doon expliqué lii rek laa doon wax donc mooy yu bëri tey yuy am ay conséquences la ay effet ay conséquences ay mbir yi amoon démb cause bi tey conséquence yi moom lañu nekk di vivre tey les choses vont de mal en mbir yaa ngi gën a ñaaw pratiquer islam bi ñoo ngi gën a comme comme li Iwa doon wax rek da ngay dem ba rus ci kanamu dëkkandoo bi nga bokkalul diine xam nga yenn yi dafa ñaaw te tamit amul benn kilifa diine bu ciy wax. amul benn kilifa aada bu ciy wax kenn du ci wax dañu dem ba ñun sax rappeurs yi nga xam ne ay musique la ñuy def ñun ñooy oser sax ñun di dénoncer yenn yi ñi nga xam ne ñoo waroon taxaw tey xeexal kii bi taxaw way di encaisser ay xaalis def lu leen neex am nga mais kenn si ñoom du taxaw wax mais bu fekkee li arrangé gouvernement bi jot na ñoom ñooy taxaw naan waaw Sénégal dëkk jàmm la dëkk yi naw peace affaire yooyu indi fi ay wax yoo xam ni pour rek ñoom seen donkaasi gi bañ a jeex maanaam pour ñu pérenniser donkaasi bi ñu nekkee loolu il faut que les sénégalais yeewu ci yenn yi quand il est temps que nit ñi delluwaat ci n'est-ce pas li arxuraan bi ak sunna bi il est temps que nit ñi delluwaat ci vrai enseignement yu nitu yàlla yi ñu ci bàyyil sénégalais yi mooy les vrais enseignements nag laa wax waxuma ay interprétation yi nit ñi di def ci ay xasaayit sëñ Touba waxuma seeni interprétation mais nañu dellu ci li sëñ Touba wax nañu dellu si li El Hadj Malick wax mais pas ay interprétation yu si ñenn yi di def parce que ku nekk tamit ñu si gën a bëri lan lañ bëgg mooy fi ñu far dañu bëgg rek niveau bi gën kii. te tamit beneen mbir boo xam ne bëggoon naa mu leer mooy ñu bëri dañ naa après gis naa ñu bëri naan ma waaye nit jullit waroo def duwaa waroo ñaan ñaanal. comme li ma wax dama ni que la malédiction d'Allah sabat sur cette personne là bi nga xam ne humilier na ndaw soosu am ñu ma naan waaye euh, dama ko war a ñaanal lu baax mais attends <laughs> yonent bi sallallahu alayhi moom contre ñoom ñoom ñoom euh, euh, ñoom Abu Jahl ah contre ñoom Uqba ibn euh, ibn Abi Muqayt ah, contre ay ñoom ñoom ñoom Umayya ibn Xalaf bu doon mais yonent bi def na droit contre ñoom bi muy julli ba gars yi jël carcasse bi teg si kaw euh, euh, euh, ba Fatima radiallahu anha ñëw kii ko def na droit contre ñooñu tudd leen ñoom ñëpp set yooyu yëpp benn par par benn par leur nom la leen tudd te pour pourtant moom mooy gën di mbindeef à part yàlla kan moo ko ëpp bu buñ paree boo yonent yàlla Moussa def na def na def na droit contre far Firawna yonent yàlla noo def na droit contre peuple am n'est-ce bi ñu paree boobu ah en plus de boobu bi ñu demee Hunayn mooy bi ñu attaqué waa Taïf après siège bi bi ñu toogee lu julli di saxaaba yi huit ans après après euh, euh, hijr bi ñu demee ba au moins comprendre concept yu bëri lan moo tax saxaaba yi ñeme ñëw ci euh, bi ñu siégé waa waa waa waa Taïf ñu xam ni amul benn yoon bu ñu mën a jaar pour ñëw kii waa parce que Taïf ci montage la nekkoon et puis dafa amoon benn muraille bu rëy lan lañ def bi ñuy waaj a la ñuy wax dañ ne dañoo saraxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne defal ñaanal contre waa defal doa kon bien que yonente bi daf leen ñaanal lu baax parce que moom mooy yonente bi mais tamit jour boobu du sahaaba yi dañoo ne yaa Mohamed defal doa contre waa Taïf ahzab yi ahzab yi les confédérés bi ñu ñëwee euh, euh, euh, bi ñu retardé prière julli tàkkusaan bi mooy ahzab les confédérés les coalisés ah bi bi tax yàlla kii tuddee saar boobu suutul ahzab bi bi waral suutul ahzab ñooñu bi ñu taralee tàkkusaan bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na doigt contre ñoom n'est-ce pas ah ak yeneen ak yeneen situation yu wane donc ñun gars yi peut nit ñi dañoo ragal peut-être nit ñi dañoo ragal sénégalais yi mais am nañ droit te am nañ devoir bu fekkee ni gars yi ñoom violence rek la ñu yaakaar ñoom amul lenn loo xam ne bu la amee lu naqari amuñu luñ koy fajee lu dul violence. mais am ku nekk am na droit toog sa kër boo jullee ba pare nga def droit contre ñi mel noonu yàlla humilier leen yàlla jëlee leen Sénégal pourquoi mu nécessaire parce que léegi bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee ba léegi bi mu ñëwee euh, gis ngeen jinne yi nee nañ dañ daan dem ci asamaan bi di sàcc ay information mais depuis quelque temps bu ñu jegee asama asamaan dañoo tëj lépp information dootu filtré donc am na sunna yu bees yu am am na loi yu bees yu na luy ay changement yu yàlla opéré nest pa pas léegi nag ci changement yooyu ab bu njëkk ba ñoom yonent yàlla noo ñoom ñëpp yàlla day wax ay ñoom saalix ak ñoom ñoom ñoom xuud ak yàlla dafa doon wax ni génn euh, tey day détruire benn peuple par exemple waaye yonent yàlla loot euh, alayhi salaam da lay wax buy détruire benn peuple danaan yonent boobu na génn nit ñu baax ñi après ñu bon ñi rek la ñuy détruire mais sunna bi léegi lan la bu destruction di am ñu baax ñeek ñu bon ñeek ñi gëm yàlla ñi gëmul yàlla ñëpp la musiba bi di dal seen kaw différence bi mooy ni ñuy dekkee loolu mooy différence bi ni ñuy dekkee ñu baax ñi ñi gëm yàlla dekki dekki bu rafet ñu bon ñi dekki dekki bu ñaaw loolu rek moom mooy différence mais musiba bu ñëwee ci ñëpp lay dal ci ñun ñëpp lay dal te dañoo bàyyi suñuy famille Sénégal donc c'est une manière de protéger nos familles bala maa dee nag ñi ñi di wax ay waxu ay euh, way euh, dañoo war a you affaire maandu ah seen discours yooyu ay maandu nit day maandoog nit day wareeva ah maandu boo xam ni you naw dañuy exposé suñu bopp ah maandu boo xam ne yow sa doom suba day dem jàngi école mun mënoo ko contrôler bu ñu nii ne ces gens là ñu récupérer leen ah bu leen récupérer da nga xam lan la leen di jox da xam lan la parce que jinne yi dañoo am ay jinne yi dañoo am ak yàlla dafay créer jinne yi am xam-xam yu bon yu mu leen jox du dëgg donc nañu bàyyi xel ci yenn yi affaire bi il est temps que les gens se Hm? ñu bàyyi seen affaire ñu ragal yàlla bàyyi seen affaire tappet yi ñuy def comprendre nga ñi war a xeex dañoo war a xeex ñi war a wax dañoo war a wax bu ñu waxul au moins ñu jël arme bi gën a xam ni moo gën a redoutable entre les mains du musulman mooy ñaan gars yi bu ñu jullee pare nañ ñaan genre yooyu noonu yal na leen fi yàlla jële yal na leen yàlla humilier yal na leen fi yàlla jëlee loolu laa amoon lu may wax wasalaam